di ko jaare sëñ Saliou mi nga xam ne moom lañu fekk si ak ganam yu baax yi sëñ Pape Jibril di sunu wëlëre ak imaam sëñ Daam Njaay waaye di leen nuyoo léegi sunu rakk yu baax yi nga xam ne ñoom lañu àndal muy Cheikh Ibrahim ak sëñ Maam Balla ñuy samay rakk di siyaar itam sunu wëlëre yi nga xam ne ñoom lañu fekk yépp sëñ May Jëng ñu xam ko bu baax ci taxawaayam ci wàllu xam-xam ak sëñ Maodo Jëng Eh, sëñ Maodo tur bi am na weneen wu ñuy wax xam na si <laughs> xaadimul xadim waaye Maodo ji mi ngi ci ba léegi mi ngi ko <laughs> ñu ngi siyaar ñoo ñëpp rek sëñ Saliou ñoo ngi lay siyaar bu baax di siyaar waa daayira bépp di am mbégte bu baax a baax di jéglu bu baax itam ci jataay bi maa ko yeexal ndax bu yàgg ba léegi sañ sëñ Baba mi ngi may soññi ak woo rek ma ñàkk positif xam naa kon ci gàtt rek ni ko sëñ Faye mi waxee dañuy wax ci dëgg-dëggi sant di lu gàtt rek dooga nag dugg ci laaj yi insha allahu taala sant mën nañ ne maqaamu mu maqaama la mu réer yi sax nag mu mu mu mu jafe itam mu néew ay gaay itam ndax suñu borom wax na ci alxuraan ne wa qalilun min ibadiya shakur nee na jaam ñi bari nañu waaye ñi ciy santkat ay santkat nee na ñu néew lañ ci li lay xamal ne day maqaama mu rëy mu am solo mooy iblis mu bon moomee bi ko suñ borom di daq bokk na ca lam wax suñ borom mooy dinaa fexe ba duñ nekk ay santkat duñ la sant fa bi ma aghwaytani iblis ku ñàkki teggin la dama yàlla jégal maanaam ay teggin bagage bu sëñ Tuubaa la ñàkki teggin moom bagage bu iblis la teggin yàgg na ma wax ne mooy ruuxuk ak murit ndax gis nga nii mu wax suñu borom kenn du ko wax buur bu toll na yàlla fa bi ma axwayta nii mooy yaa ma yaa ma yaa bewloo yaa fexe ba mënumaa jug la aqudanna lahum siraataka almustaqim summa la aatiyannahum min bayni aydihim wa min xalfihim wa an aymaanihim wa an chamailihim wala tajidu aktarahum shaakirina mooy ginnaaw doomu aadama yi ñoo tax nga dàq ma ñoom dinaa leen yàqal sama kem kattan wet gu ne dinaa leen fa jaare ngir yàqal leen dinaa fexe ba duñ doon ay santkat moo xam ne sant mooy buntu yàlla ba sant mooy bunt bi gën a yaatu gën a rëy gën a barkeel gën a jege gën a sell gën a gaaw ci bunt yàlla yi sunu borom digle na ko ci alxuraan ba tey fadkuru ala allahi laallakum tuflixuuna yaa bani israila adkuru nicmati allati anamtu aleykum lu wax ne wa amma bi nicmati rabbika fa xaddis ci aay yu bare bari yoo xam day digle ak cant kon sant bala ñoo xam lan mooy dëgg dëgg ak sant dañuy njëkk a xam ne mooy li ëpp solo mën nañ ne ci jaam ñi nga xam ne dañuy dox jëm ci yàlla sant mooy waruwaayu murid saadix murid saadix waruwaayam wi gën a gaaw mooy sant nekk ab santkat ndax sant mooy jur ak cofeel ndax sant bala koo nit kee man daa yëg xéewal yi nga xam ne daa daje fi moom te bari te mënu koo waññi muy xéewal yu bare bare bare bare bari wa in tauddu nicmatallahi laa tuxsuuha te xéewal yooyu boo ko yëgee rek moo la jural cofeel gu gu gu goo xam ni du amub dayoo ci suñu borom tabaraka wa taala te murit dëgg dëgg ab tàmbalib doxam mooy mooy bëgg yàlla ci la foofu lay déparé bëgg mooy mooy waruwaay nag ba nga xam ne moo koy tuxal ca jaaruwaay ya ba yóbbu ko ci àgguwaay te bëgg ma mënta am te nit ki nekkul ab santkat moo tax kenn ci nit yàlla yi bi mu koy bi koy melal moom cant di ko firi dafa xam ne mooy uquuful qalbi ala mahabbatil munimi wa dawaamul jawaarixi ala taatihi wa jarayaanul lisaani bi dikrihi wa thanaayi alayhi mooy sant ci dëgg dëgg sant moom xol a koy def waaye cër yi duñ ci génn cër yi duñ ci génn waaye làmmiñ wit du ci génn sant nit ki da koy def ci làmmiñam ak ci cëram ak ci xolam ñetti xeeti sant yooyu benn bokk ci waaye cant googu nag li muy jur mooy cofeeluk suñu borom mooy bëgg yàlla te bëgg nag mooy waruwaay wi nga xam ne nag moo gën a gaaw ci waruwaay yépp ndax mooy tax ngay jëf te doo ca séentu ak pay doo bëgg ku ko xam doo bëgg ku la sant doo seet sax ba xam am nga wéttalam déet la ngay defit man maanaam loo def xeeb ko loo def xeeb ko loolu bëgg ko mën a def bëgg mooy tax ngay jëf-jëf joo xam ni maanaam yow loo def rek lu mu rëy rëy danga koy xeeb sab dox lu mu gaaw gaaw nga nga dox nga xeeb dox bi ndax ka nga bëgg kooka dara du la ca du la nga ca bëgg dëgg-dëgg doo ko ci mën a gaaw am cofeel googu nag ngir mu judd sa xol faw nga nekk ab sant santkat kon cant ku mel ne ibnu ajibata moom dafa wax ne mooy xol boo xam ne day bëgg ci yàlla ci gis gi muy gis xéewal yi ci wet gu ne nga xam ne lépp xéewal la ca gis bu ko defee nag cër yépp maase di jëmmal cant googu ci di dox ci ndigalul yàlla ci def ndigal ak bàyyi tere waaye xol ba nag moom di janloog al mooy kiy joxe xéewal yi xam nga am na ñoo xam ni xéewal yi moo leen tee nelaw waaye am na ñoo xam ni kii joxe xéewal yi moo leen nelaw <laughs> am na ñoo xam ni kaas bi ak li ne ci kaas bi moom lañuy ñuy ci lañ bëgg àgg moom lañ bëgg moom lañ ci lañ bëgg a jot bëgg ñu jotal leen ab kaas bañ naan ca ba mos neexiiti la ne ca kaas ba waaye am na ñoo xam ne loxo bi joxe kaas bi moo leen teen law ñaari yooyu nag bokkuñu dëgg dëgg cant nag mooy xol boo xam ne day gis loxo boobee nga xam ne mooy joxe xéewal yi gis taarub loxo bi bëgg àgg nag ci ci dañ kumpa mboolem jëmm jooje nga xam ne nag moom mooy dayoob mboolem taar yi ak ak rafet rafet yi ak mbaax yi ak cell teg yi loo gis ci kaw suuf muy nurub taar moo xam da nga ko xool ci sa bët walla nga dégg ko ci sa sa say nopp walla nga làmb ko sa loxo xamal ne taar boobu du dara lu may as toq ci géejug taar gi nga xam ne nag mooy taaru suñu borom tabaraka wa ba nga xam ne moo tee nelaw gaañee taar boobee nag janloo gi xol bi janloog borom taar boobee ku sell kooke ku màgg kooke ku baax kooke borom kattan googe nga xam ne yëmut fenn mu gis ne léppi melo mu ngi daje fi moom fi ne sant ga dëgg-dëgg ab aarif billaahi lay doon mooy ku xam yàlla ndax day gis ne ci kaw suuf lépp fi ne bu la nit defaloon dara sax mu nga ko ciy sant loolee sant yàlla la ndax lu la waay mën a defar rek ca yàlla la bàyyi ko ndax xéewal yépp ni ma koy misaal lu bare bari mi ngi mel ne ni ma ko daa misaalee sama mbokki taalibe yi ci kër ga gone yi dama wax ne tey boo amoon boo juboon lu mel ne màggal gii am lu la ci war lu bari te xay na mënoo ko mënewoo ko noonu am nag sa mbokk moo xam ne ma nga ca bitim réew jëkkee ko rek yón yónnee la enveloppe boo xam ne moom la ca ne moom mën naa jagal màggal gi bu baax a baax a baax jox ko benn waaye mu ñëw xam nga bu ñëwee moom waa ji ko indi moom da nga ko sant moom bu dee sëñ baabaa ko indi da ko sant bu baax jërëjëf sëñ baaba dalal ko kii ko am ci moom mbégte moom da sant danga ko bég da nga bég ci moom it waaye ka ngay gën a bég ak ka ngay gën a sant mooy ka ko yónnee kooko moom moom moom da ko sant cant gu wér-wér xéewal yépp nag noonu la demee mooy yàlla koy yónnee jaarale ko ci ay jaarwaay kon dëgg-dëggi cant foofu la tàmbalee mooy xam xéewal yi janloog moom xam fa muy jógee ak ka koy ka la koy jox sa yitte nag di jëmmal ak cant ci xéewal yooyu te mu wóor la da ci ciy moom doo ko man ndax lépp loo nar a sante fi ne moom it xéewal la gu yees sayidna daawuda alayhi salaam loolu la waxoon suñu borom ne ko nan laa lay sante ndax maanaam kaddu gii may wax ne maa ngi lay sant sax loolu geneen xéewal la fi ne gooma yónnee nga xam ne bu ma la ci war na maa santaat xéewal googu bu ma ne waat itam maa ngi lay santaat googu ak itam geneen xéewal la ndax kàttanu mën a wax xam nga dinaay wax lu bare bari ne doomu aadama ni ko yàlla bindee fi ne léppam fi ne day dund ci géeju xéewal te ko fi ne wax jii ngay wax nii fi ne dara gënu koo doy waar fi ne dara gënu ko yéeme xamoo noo def ba wax di sëñ bi da ngay bëgg yëg ne bëgg ngaa wax gis ne gaajaa ngi lay dégg ngeen di communiquer waaye noo def ba wax fi ne mënoo koo jàng ko sa bopp nga ko ba mokkal ko rek ma ngi ca bopp ba nga bëgg ko fàttaliku léeg-léeg mu ñëwaat waaye bis nga ñëw bëgg ko fàttaliku mu réer la mër moo la xam ne yow dencoo ko fa dañ la ko faa dencal dañ la ko faa téye xiiwal yi ngay jëfandikoo yëpp noonu la demee da nga koy jëfandikoo waaye yow du yaa ko moom wala yaa ko fi bàyyi kattan gii nga am fi ne da ngaa juddu amoo benn kattan ñu lay dimbali ci lépp kattan gi ñëw ndànk ndànk ndànk ba nga nekk da waxambaane nekk ci njobbaxtanul kattan kattan googu day wàññiku ndànk ndànk ba mujj sa jëmm jii fi ne du la mën a téye nga yor ab ab dog di ko sukkandikoo ngir mu mën laa dolli kattan mujj na dokk bi sax du la mën a dimbali nga tëdd di xaar dee moo la xam ne kattan googu ba muy ñëw indiwoo ko buy dem du la taggu te du ceegeen yaa fi téye itam ni ma koy misaale nelaw moom ci la gën a leere nelaw moom guddi gi xam nga dangay tëdd rek di wëlbatikoo ko wëlbatikoo at di xaar xéewalug nelaw nes tuut nga yëg ne nekkatoo fi boo demee ba noppalu ba nopp lu yëg ne delsiwaat nga loolu moom sëñ Pape Djibril jàngkat yi xëy na nuñ ko mën a fire waaye nii moom li ñuy gis nun xéewal la goo xam ne suñu borom mën a koy yónnee wax ji noonu la demee xam-xam bi noonu la demee kattan gi noonu la demee fi ne même booy dox équilibre bi ngay am nii fi ne duñ ci xalaat waaye lu yéemoo yéem a ngi noonu fi ne bu la dara puusoon ba nga nara daanu fi ne da ngay jëkk rek dellusiwaat fi ne te loolu xam nga nekkoo di jël décision wala ngay wala ngay jël dogal ci dellusiwaat maanaam ni muy anam gi muy ñëwee mooy yow. maanaam doomu aadama mook écran bii surewuñ mboolem liy feeñ ci ay kattan ak ay man-man ak ay xam-xam day feeñee ci moom waaye du céegée ni moo ko sàkk wala moo ko moo ko moo ko moom wala moo ko fa denc lu luñ koy yónnee la suñu boroom la ko yónnee xéewal yooyu nag moom janloo gi ngay janloo moom ci sa xol moo la jural ubudiya mooy tax nga nga yëg sag lot xam ne yow maanaam lu mën a xew rek amoo mënoo te maanaam ku lott nga fi kanam suñu borom moo tax ab sant kër dëgg-dëgg du rëy du yëg boppam ndax ubodiya da daa bokk ci li muy jur mooy ak ubodiya kon loolu ci gàttal mooy ak cant léegi nag xéewal yooyu yu bare bare la am na ci yoo xam ni yooyu dund la ci mbiri àdduna mooy wér gi nga am am koo xam ni gën léwoo ko dara waaye ma ngi ca lali hôpital yi yor wér di koo xam ni dara neexu mënta lekk dara mënta naan am na ñoo xam ne bu ñu tuur ndox sax dañuy dem hôpital fii ne xam nga ñu ñu tuural leen ndox am ñoo xam ne bu ñu bëggee lekk ci raakool lay jaar sa moroom moom yi yàlla xañ ko wér yow mu jox la ko du cee génn dalaa gën a bëgg ci moom déedéet moom it ni mu la bëggee noonu la noonu la ko bëggee yonent bi daana wax ne suñu borom ni mu yërëme doomu aadama moo raw ni nday ni la sa nday yërëme yërmaande ji la su sa nday ëmbal loolu yërm yërëm gi suñu borom yërëm moo ko moo ko ëpp yërmaande suñu borom moo ko ëpp ci yow ndax sa nday yërmaande ji nekk ci moom suñu borom a ko def ci moom ngir mu mën laa taxaw ndax ab liir gis nga ni mu sonlee fi ne bu juddoo bu fekkoon tey du yërmaande ji ko ndeyam ëmbal maanaam bu du loolu da koy sànni xam nga ndax liir daa sonlee te bari ay benk waaye suñu borom daa def ci moom yërmaane joo xam ni yow moom moom sax moo koy gënal boppam yërmaane jooju ngir mu man ko sàmm toppatoo ko ba mu màgg kon xéewali foofu la tàmbali mooy am na yoo xam ne xéewali àdduna la ni ki jàmm ji nga am alal alal ji nga xam ne moom la la yàlla wërsëgale ak mboolem li la yàlla wërsëgal rek ci xeeti xéewal yi am yoo xam ne xéewali diine la lu mel ne xam-xam bi nga xam ne moom nga jot a xam ci diine ak ragal yàlla gi nga jot a am ak xam yàlla li nga jot a xam ci yàlla ak yéen deme am yoo xam ne xéewal yoo xam ne ëllëg la jëm mooy tuyaaba jële suñu borom di faye ëllëg ak ak àjjana ja ak xéewal yi nga xam ne moom lay faye foofee ak yéen deme fi ne gën gi nga gëm yàlla ànd ak Sëriñ Tuubaa loolu mooy moom xéewal mooy xéewal gi gën a rëy ci li nga am ndax du ceegee ne ku ko bëgg am am ko suñu borom wax na ci alxuraan ne ngëm suñu borom moo leen maanaam xéewal lëggu suñu borom di joxe walakin walakin allaha xababa ilaykum limaana wa zayyanahu fi qulubikum kee gëmut yàlla du cee génne maanaam maanaam kooka tawfiq la amut yow suñu borom defal la tawfiq walaw laa fadlullahi wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin mooy tazkiye itam yoonu tërbiye ak yoonu suubu jëm ci yàlla ak tariixa loolu it mën ngaa nekk maanaam gëm yàlla dib jullit te doo ci dugg kon gëm yàlla dib jullit nekkub murit boole ci loolu geneen tawféex la joo xam ni moom dara gënu koo kawe ci kaw suuf moom ci li ngay am yow moo tax xéewal yi foofu la tàmbalee dafa bari ay jaaruwaay nag jaaruwaay yi mën naa doon doomu aadama mën naa doon leneen waaye ñooña yow bàyyi xel gi ngay bàyyi xel ci sa xel ak sa xol ne ñii kat jaaruwaay lañ waaye xéwal yi ma nga bàyyi ko fa yàlla loolu muy loolu daa bokk ci dëgg-dëggi sant laa yashkuru llaaha dégg nga ni ko yonte wax man laa yashkuri naas maanaam mënoo sant yàlla dëgg-dëgg sant sax te gisoo jaaruwaay yi mu jaar suñu borom digal nanu ne na ngeen sant masalan seeni waajur an iskur lii wali waalidayk ndax waajur yi dafa am maanaam xéewal yu bari yu jaare ñoom ñëw ci yow suñu borom jaarale ko ci yow maanaam feeñ gi nga feeñ rek ci ñoom la jaare ak yéen a demee kon ci tënk sant des na ko xaaj ñetti xaaj mooy cantug làmmiñ moo ci gën a woyof wax gi ngay wax alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamina wala xasiid ak sant gi ngay jàng di ko sant yàlla wala am na nag ci cantu làmmiñ lu gën a kawe loo xam nit yàlla yi ñoom ab dog la woon ci ñoom wirdu woon ci ñoom mooy toog nii di di lim xeeti xéewal yi waaw di ko lim di wax ne man loolu mooy li dinaa koy misaal ci nuuru daare loolu suñ bi def nga xam te xéewal yëpp da koy lim di wax ne defal nga ma nangam defal nga ma nangam sabartani an il xaraami qablu wa fitnatu naasi mahad wal kablu mi ngoog di wéy di wax di ko di ko nettali maanaam lu ne mu ne defal nga ma ko ci biir dund gi ba àgg nag ne ko nag lam tansani rabbi wala ansaak maanaam mosoo ma fàtte <laughs> ba tax na man it la fàtte mukk maanaam lim gi ngay lim xeeti xéewal yi loolu mag ñi dañ ko daa def ak seen njaboot ne man day yàlla defal na ma sutura defal na ma nangam ba ma booleeg sëriñ bi fii laa jaar di wax xéewal yi nga xam ne moom lañ kii lim googu ngay lim xéewal yi kooku wirdu la ci mag ñi du cee gën nañ cee jublu wane lu leen yàlla defal ak loolu waaye waaye du kii la maanaam ndax loolu day day day gën a yokk dégg nga sa cofeel ci jaaruwaay bii suñ suñ borom jaarale xéewal yi muy sëñ Tuubaa waaye day gën a yokk sa cofeel ci suñ borom itam tabaaraka wa taala kon li jiitu ci xéewal yi mooy xéewalu euh, maanaam sant ci sa ci sa ci sa làmmiñ loolu sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam sayduna abdullah ibn omar wax na ne am na yonte bi mas naa wax bis di leen leeral xeetu cant googu ni mu amee solo ne leen ab jaama ngi ci jaam yàlla yi dafa masa di sant yàlla yi xéewal yi ko suñu borom defal muy sant ba wax ne yaa rabbi laka alhamdu kama yanbaghi li jalaali wajhika wa li azimi sultaanika maa ngi lay sant yow suñu borom cant goo xam ni moo yelloon teeg sa jëmm ju màgg ji xam nga bi suñu borom kenn xëmut ak màggaayam xam nga sunu borom mooy loo xam ni tey ci misaal amut xadd ni ko sëñ Maodo ñoom ñi di jàngale amul foo xam ne xam ne fii la yem leneen tàmbalee fa amul xadd amul waaye amul kii maanaam ab ak màggaayam kenn mënu ko xayma cant gu toll ni màggaay ak sunu borom nag loolu moom. moo tax nee na bi mu waxee baat boobu malayka yi maanaam dañoo xamul lu ñuy bind ndax mbooleem chiffres yi ngay bind yëpp ëpp maanaam lii baat bi wax moo ko ëpp <laughs> baat bi waa ji wax moo ko ëpp nee malayka yi dellu suñu borom ne ko am nga jaam boo xam de wax na wax joo xam de nun jéem nañ koo bëgg a bind waaye mën na fexe ba bind ko mu ne leen nag lu sama jaam bi wax ñu ne ko nee na yaa rabbi laka alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi mu ne leen nag uktubuha uktubaha kama qaala abdi xatta yalqaani fa ajziyahu biha yéen léegi bind leen baat bi noonu rek bu leen jéem bind yool bi ak tuyaaba ji bu agsee fi man nag ma ma ma fay ko man te lii bi seen ngeen jàng ko ci xasida yi kama yambari li jëla xam nga suñu tubaab wax baat boo xam ne ci moom rek nga koy déggee bi qadri azamati daatika bi qadri maanaam baat bu rëyee ngi noonu jëmmi suñu borom ak màggaayam dafa amutub dayoo amutub yemoo kenn mënu koo xayma itam xelum doomu aadama sax ëpp na xelum doomu aadama xam nga nit yàlla yi dañ wax ne jëmmi ak wujud mooy li am existence ci misaal rek bu ñu ko woon fii lii mooy li al wujud lépp wujud suñu borom da ko occupé moo ko moom bayilu fa keneen dara moo tax sharik mënta am beneen yàlla mënta am nit yàlla yi loolu sax du seen waxtaan ndax xam nañ loolu masalan daa mënta am moom aslan ndax kenn amu fi place lépp suñu borom a ko jotee màggaay boobu nga xam ne nag tey yi ci des yi feeñ ak ñun ñi ñëpp nag ci biir wujudam googu lañ la ñuy tàbbi waaye jëmmi wujud moom lépp wujud suñu borom moo ko moo ko moo ko moo ko loolu nag kon kenn mënta xam li sëñ bi wax bi qadri azamati daatika dëgg-dëggi màggu jëmmi suñu borom jooje te daat la wax waxut ay sifaat ak ak yeneen asma yi nga xam ne mooy tegtale sifaat moo tax baat ay daam baat yoo xam ni moo tax xasida Sëriñ Tuubaa yi léegi da nga jàng xasida xam nga loolu noonu buñ ko doon jéema wax doo ko mën a wax ci sa xalaati bopp waaye sëñ bi tënkal la ko ci xasida ci misaal nga ñëw jàng ko foofee ne nga amee ci loo xam ne adduna ak alaxira mënoo koo xayma yow ba xam ni mu toll <laughs> mi nga kon loolu benn la ci xeeti sant yi mooy cantug làmmiñ am cantug cër yi loolu la Sëriñ dégg nga cantuk cër yi nag mooy xéewal gu ne nga delloo ko ca ca ca ca la tax su la la ko suñ borom joxe ak nam la ko joxe ak kala ko jox i'malu ala daawuda shukran daa am cant koo xam ne jëf lay doon xam nga cant du yem ci làmmiñ képp jëf lay doon jëfa cee topp jëfa cee topp mooy cër yii bu mu génn bëgguk suñ boroom mboolem li suñ borom bëggit nga di ko defee nam ko bëgge loolu ci cant lay tàbbi def ndigal yi bàyyi tere yi bu dee alal jum la joxe alal jooji nga koy delloo ci bëggam bu dee kattan gi nga di ko delloo ci bëggam xam-xam bi nga koy delloo ci bëggam mboolem di la suñu borom wërsëgal lépp nga koy delloo ci bëggam loolu mooy cantu cër yi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam xam ngeen ne daana julli ba tànk yi dégg nga maanaam new yi waaye benn bi soxna Aysa dana ko ginnaaw suñu boroom jéggal na la la weesoog la jiitu tey xanaa doo noppal sa bopp mu ne ko afala akunu abdan shakuran dama bëgg a nekk di jaam boo xam ne day sant moo lay ne kon jëf ak cant la jëf yi ak cant la jëf yi cant la jërëjëf am nag geneen xeetu cant goo xam nag mooy dëgg-dëgg sant moom mooy mooy moo bi xam naa mooy nag cantu xol cantu xol xam nga li fi jàpp nga ne yow yaa ngi jëf te mën ngaa jëf te am na looy jox yàlla yow yaa ngi ci njëlbeenu yoon wa doxagoo benn jéego <laughs> murid dëgg dëgg da yëg ne maanaam moom amul kattan ci genn wet xamul mënut amut mboolem lii xew ci jëmmam it sunu borom kattanuk sunu borom ci la koy defe ak tawféexi sunu borom. moo tax xol rek la murit di am murit xol mooy mooy koo xam ni xolam képp mooy capitalam bi gën a kawe nag ci lim am mooy xol bi nga am ak cofeel gi ci ne ak bëgg gi ci ne loolu mooy capitalu ab murit xol boobee nag dégg nga gis gi muy gis mbooleem xéewal yépp gis na xéewal gu ne mi ngi bàyyi ko ci jeexiti tur yàlla yi nga xam ne lépp day bàyyi ko fa suñu borom janlook gi muy janloog moom loolee mooy dëgg-dëgg ak cant gis nga wa ma bikum min ni'matin fa min allah man lépp xam nga fa suñu borom lay bàyyi ko xéwal yépp yonente bi daana wax ne ku xëy suba wax baat yi nga xam ne tey romb ngeen ko ba tay ci xasida yi mooy li mu wax ne allahumma ma asbaxa bi min ni'matin aw bi ahadin min xalqika fa milka waxdaka laa sharika lak fa laka alhamdu wa laka shukru nee na loolu boo xëyee wax ko yow sant nga dëgg dëgg sant ca bis boobee nga xam ne li la war ci sant moom sa digg sa borom def nga ko boo gontee wax ko itam noonu kon dëgg-dëgg sant mooy baat yi li muy tekki mooy ma asbaxa bi min ni'matin aw bi ahada min xalqika fa minka waxdaka loolu waxi xol la xam nga mooy lépp lu lu doon xéewal ci liñ xam ak liñ xamut ci yow la bàyyi ko suñu borom tabaaraka wa taala moo tax sayyiduna Muusa alayhi salaam di wax nañ ne suñ borom da koo mayoon mu mën a wax ak moom bi muy wax ak suñu boroom nag ne ko yow suñu boroom aadama defal nga ko lu rëy ndax da nga koo sàkk te wax ne ci sa ci sa loxol bopp ci nga ko ci ko binde ci waxin yémoo ci loolu wal ci moom ak ruux wa nafaxtu fiihi min ruuxi sama sa ruuxu sama ruuxu bopp laa wal ci moom loolu la ko suñu borom waxee malayka yëpp mu leen sujjóotal leen aadama alayhi salaam xamal ko mboolem asmaa yi defal ko wax ko yu baree bari yoo xam ne defal na ko sayyidina aadama ne ko nag li mu bëggoon a xam mooy aadama moom ndax sant na la ak nu la sante suñ boroom tontu ko ne ko alima anna dalika minni fa kaanat maarifatuhu bi dalika shukra xamoon na ne loolu lépp maa ko ko defal xam gi mu xam ne maa ko ko defal nag mooy cant gi <laughs> nga xam ne kon xol bi foofu lay tax xol gi moom xam gi mu xam ne lépp ci yàlla lay bàyyi ko te yàllaa koy dogal loolu mooy ak cantam sayyiduna Daawud alayhi salaam wax nañ ne mas naa wax suñu borom ne ko loolu maa ngi ko doon wax léegi ne ko nan laa lay sante ndax xéewal yi daa bari te bu ma bëggee wax ne maa ngi lay sant alhamdulilah loolu geneen xéewal la gu dolli ko léegi nag nan laa lay sante suñu borom ne ko bi nga xamee ne xéewal yooyu yëpp ci man la bàyyi ko te xam nga ne itam lépp xéewal la te ci man la bàyyi ko ne na loolu yi al aana shakartani yaa daawud léegi nag kon sant nga ma sant nga ma léegi moo tax sant sant kon noonu la demee nga xam ne dafa am ay maratib ay tolluwaayu yu bokkut cant gi nga xam ne mooy cantuk sun sunu maas gu gu doyee di gi te te seenub dox dégg nga amul solo seeni jéego euh, maanaam amul solo seeni tànk lompañ te te <laughs> seeni tànk lompañ ñu ñu ñu tële ñooñ seenug cant moom ci xéewal yi la yem mooy xéewal yi lañuy gis ñoo nag ñu jàmbaar lañ sax nag ci wet ndax am na ñoo xam ne xéewal yi danañ ko jëfandikoo ak a gis waaye teewul dañuy wéy di jàmbat képp mooy li xew ci réew mi koo dajal jàmbat man de sëñ bi man man daal taxawal naa place boo xam ne place ba sax ma ngay dox waaye nag teewul rek <laughs> xam ne lépp jàmbat <laughs> murid saadix nag fi ñu tàmbalee mooy du day bàyyi jàmbat moom xam nga sëñ Tuubaa daa wax ne nasaxtu bi sukri shikaayatan maanaam neen dama folli jàmbat jënde ko ak cant xam nga Sëñ Tuubaa moom bu doon jàmbat am mooy kii war a gën a jàmbat koo xam ni tey naa ñëw sax ci mbirum Sëñ Tuubaa waaye fanweeri at ñett ci sa dund tubaab yi téye ko ko ci tooñ defu leen waxu leen deful waxul fa lam yafaal wa lam yaquli Sëñ Mbakke bu su noonu mu waxee kam sibyatin wa dawaatil xidri daaiatun bi nafi cheykhin wa lam yafaal wa lam yaquli joo xam ni tooñu la waxul deful mu saree sax aw aw melantaan nga jël ko nekk kilifa nag sañ ciy dëkk yor ay mbooloo yoo xam ne ñëpp a ngi yor seen dëkk nga ne ko fi coppet jël ko yóbbu ko fële ci àllu gabon bee nga xam ne moom moom delsi fa ni ma ko waxee léegi mbokk yi ma ne leen loolu moom delsi dem fa delsi loolu maanaam yéen wut maanaa ci xel nii amut ku fa mas a dem delsi nga sànni ko foofa tumuraanke ko jéem koo faat ba tey ñëw defut ci réew mi lu may juróom benni weer nga yóbbu ko Mauritanie Mauritanie moom it moo gën a doy waar lépp jànkonte yam fa jànkonte ñëw ñu nga yóbbuwaat ko fële ca Jolof ñëw nga def ko résidence résidence surveillée fële ca ca njëreem maanaam sëñ moom dëkkam bi ko gën a doon ci dëkk yi moo doon Touba gis nga ñaan na ko ba tàyyi ilaahi ilaa tuubaaya ya mooy sama Touba ga xudd nii wasalliman waqudni ila tuuba <laughs> lu ñaan na ko ba tey léegi ànd ak loolu lépp nag dégg nga mu ne jégal naa leen ci xol bu sedd guy waaw afawtu li wajhillaahi maa safwi kalkali loolu mu ngoog maa ngi fàtte fi li taxoon ma dugg foofu sax nag <laughs> mi ngoog léegi daal cant yi kon ñett xeeti sant la mooy sukurul awaam mooy cantu murid murid yi door a jóg suñ nga xam ne suñu classe gi waaye am nag cantul ak xawaas mooy ña dem ba ci digg yoon wa xej yi yenn yi xej yi nga xam ne ñoom duñ sant ci xéewal yi kese de maanaam murid yi ndaw yi ñoom ci xéewal yi képp lañuy gis di ci sant waaye murid ya gën a dëgër nag murid saada ya nga xam ne ñu ngi ci digg yoon ñoom xéewal yi ak safaani xéewal yi yëpp lañuy sant ndax dañu gis ne lépp xéewal la fi ne ci misaal rek mu ngi mel ne tey nga amoon wéradi goo xam ne day yéeg ci sa yaram ñu ne sa tànk bi buñ ko dëggut wéradi gi mën naa yéeg te mën na laa faat xam dangay bëgg ñu dagg ko docteur bi lay daggal tànk bi làmmiñ wi ngay mettitloo fi ne ci nga koy sante ci nga koy sant ndax bu ko dëggut du baax xam nga kooku fi ne moom day nuru ne mettit la waaye nag xéewal la ba tey loolu mettit la waaye xéewal la murit ya ci xawaas yi nag loolu la ñuy moom dañuy gis ne xéewal yi xéewal la waaye safaanub xéewalit xéewal la wa nabluukum bi charri wal xayri wa asbaga aleykum niamahu zahiratan wa batinatan loolu la rawee murid yu ndaw yee ndaw ñetteelu gaañe nag mooy xawaasul xawaas mooy murid yu mag yaa mag <laughs> saadix yu mag ya nga xam ne ñoom weesu nañu saadix waaye siddiq lañ siddiquun yi ñoom nag dañuy seey ci biir kiy joxe xéewal yi bu duutuñu gisati maanaam xéewal ak sawaanum xéewal duutuñu ko ràññeeti <laughs> xam ñooñu nekkuñu fi maanaam maanaam mbir ndax xéewal laag neex na naqari na loolu maanaam duñ ko sax bàyyi xel lañuy ñuy mooy kenn fi ne te moom lay jëflanteel te kooko moom ab sawaan sax nag du bàyyi ko ci moom lépp xéewal la moom moo tax chibli moom ca daanukat yu mag yi la bokkoon danaa wax ne al shukru ruyatul munimi la ruyatul ni'mati kon loolu mooy ak cant fi ne sant ci ci ci ambiyaw yi ñaar rek lañ gis ci alxuraan suñu borom melal leen ne ay santkat lañ mu seydina ibrahima alayhi salaam inna ibrahima kaana ummatan qaanitan lillahi xanifan wa lam yaku min al mushrikina shaakiran li anumi ne moom da doon sant ay da doon sant ab santkat la waaye ibrahim gis nga mooy xaritub yàlla fi ne ñaareel bi mooy seydina nuux alayhi nga xam ne mooy abul ambiya innahu kaana abdan shakuran ki nga xam ne moo leen ñetteel nag mooy sayidna muhammad afala akunu abdan shakura sayidna muhammad alayhi salaatu wasalaam xam nga am na lu mu jàngale ñëpp bokk ci waaye am na loo xam ne da ko jagleel ñennti saxaaba ku mel ne sayidna muaas ibnu jabal mas na ko wax ne ko yaa muaas inni uhibbuka baat bu am solo ci muaas mooy de yow dama laa bëgg ne ko nag moo tax maa ngi lay dénk saa yoo jullee ba noppi na nga wax ne allahumma ainni ala dikrika wa shukrika wa xusni ibadatika suñu nag ma ma dimbali ba ma man lay tudd waxtu wu ne di sant waxtu wu ne di jaamu jaamu gu sell rafet te dëppoog maanaam sa jëmm ji kon loolu ci gàttal mooy dëgg ak sant bëgg na ma ci xéewal yi waaye xam naa loolu bisimilah ah waaw waaw da ngay defar <laughs> bisimilah waaw ah, bëgg waat xéwal yi waaye xam naa loolu moom du du du maanaam mën nañoo taxaw ci mën nañoo yem ci loolu yaakaar naa ci wàllu cant waaw ah. xéwal yi nag murit bu ne xam nga murit mooy koo xam ni yàlla képp mooy yitteem loolu la Sëñ Tuubaa murit da ngay jullit ba noppi doog a ñëw nekk murit da ngay doonub jullit di jullee ka woor aka natt asaka yooyu loolu mooy muslim nga dugagoo fi ne ci mu'min qaalat al arabu amanna qul lam tuuminu walakin qulu aslamna mooy muslim nga waaye doonagoo mu'min mooy sa xol gëmagul dëgg dëkki gëm boo demee ba sa xol nag dëgg gëm dëgg ngëm mu'min nga waaye doona doonagoo muhsin boo doonee mu'min nag ginnaaw ba nag fa la murit tàmbalee mooy nga sóobu nag dox wuti maqaamul ixsaan an taabudallaha ka annaka taraahu fa in lam takun taraahu fa innahu yarak kon murit maanaam du lu woyof du lu tuuti du lu du lu am maanaam fi ne muslim bi nga xam ne tey mooy xale bi nga xam daa juddu baayam ak ndeyam di jullit mu fekk ñuy julli muy julli ñuy woor muy woor waaye yooyu daanaka aggul ci xol bi kooku fi ne mag ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla nekk ca jàkka jee waxtu nañu nekk ca dañuy yàq moom day yàq seen yàq seen waxtu maanaam ñoom duñ leen mën a xam la ñuy def mu'min bi itam noonu maanaam lii murit bi defit mënu ko mënu koo xam ndax ak seegu fi noonu la deme léegi nag murit nag fa mu tàmbalee mooy sa yitte jëpp di jëmmi suñ borom moom ngay dàkk fi ne aljana sax du la tax di jaamu wala ragal sawara loolee maam Cheikh Ibrahima Fall mu baax ma waxoon mooy doxiinu saa dex mooy bëgg àjjana taxumaa ñëw fi sëñ bi ragal sa warit dégg nga taxuma fee ñëw man jëmmi sëñ bi rek laa bëgg te bëgg gi bëgg sëñ bi daa dugg ci bëgg gi bëgg yàlla maanaam yàlla lay wut kon murit foofa lay ne ndax àjjana bu fekkee moo la tax di jaamu tey bu suñu borom ne àjjana amatul bàyyi naa ko xam nga dootoo jaamati yow te maanaam nun ay jaam lañ yoo xam ne ñoo war a jaamu yàlla ngir ne mooy yàlla yàlla kenn tu ko jaamu par intérêt moo tax ak murid di lu kawe kawe murid nag kon xéewal yi muy njëkk gis mooy fi mu ne da ngay gis ne yàlla borom yërmande la loolu lu mat a bàyyi xel la boo gisee murid yi njëkk ya ak suufiyanke yi rek dañuy bari yërmande ndax yërmande suñu borom ji dañuy jan lool wute gaa ñi nga xam ne ñaari baat ñett yow ñu génne la ci diine ji maanaam jekk ci faat la rendi la def nit ñi ay camion man leen sol ci camion dema leen sawar xam nga ñooñu yërmande seen yërmande bariwut maanaam murit nag mooy koo xam ne gis ne suñu borom wa rahmati wasiat kulla shay la suñu borom wax suñu borom yërmandeem da amutub dayoo akub àpp na jëmmam ja mel ci màggaay noonu la yërmandeem toll kataba ala nafsihi rahma iblis ci moom fi ne am na ci kenn ci nit yàlla yi dama xamul ku doon abul yasil bastaani wala kenn neen dama ko mas a gis iblis xamal ko ne ko ah man de maa ngi yaakaar yéen man yàlla <laughs> mun ne ko yow moom man yàlla noo ko yaakaar yow iblis mu bon mi nga xam ne dem nga ko ah? iblis ne ko suñ boroom moo wax ne wa rahmati wasiat kulla shay'in sama yërmaande xajoo na lépp te man shay un ci laa bokk shay <laughs> mooy mooy mooy lépp rek dara Cheikh Abou Cheikh Abou Yazid ne ko aay bi yëmul foofu dafa wax ne fa sa aktubuha lilladina yattaquuna ñi may jox yërmaane ji mooy ñi ragal yàlla iblis ne ko yow seetee googu ngay seetee sa sa sa jikko la ak sa melo waaye yàlla <laughs> yàlla foofu la mu wax mooy ñii dinaa leen jox ci yërmaane ji waaye waxut kum ko fi xañ fi ne ginnaaw xëñagu ko kenn nag man maa ngi ci yaakaar <laughs> xam nga suñ borom moom moom yërmaandeem jooju maanaam sëñ bi loolu yi xam nga su yonente bi xaswatu Uhud daa gis jigéen joo xam ne doon wër doomam di ko wër ba jël ko taf ko ci boppam nee na yonente bi daal ne ndax ndaw sii doomam jeeg ni mu ko wëre ci biir jaxasoo bi ba taf ko ci boppam ndax dana jël doomam ji di ko sànni ci xal ab taal ñu ne ko kii kay xalaatu ko mu ne leen lallaahu arhamu bi ibaadihi min haadihi bi waladiha yàlla ni mu yërëme jaam ñi moo ndaw ni ndaw si moo raw ni ndaw si yërëme doomam ji xam nga yow sa yaayi bopp sa ndey bu ñu la woon moo yore mbir yi nga xam ne moom euh, ëllëg moo koy lijjanti xam nga kooko yow soo da ngay da sant rek doo am doo xalaat dara ëllëg te ka nga fay fekk moo nam la yërëme moo raw ni la sa ndey ji yërëme seetal yërëma na jooju rek murid bi nag yërmaane jooji lay lay teg bëtam gis ne itam suñu borom jaam ñi ngay gis ni li tax ñoom duñ woyofal kenn mooy dañu xam ne jaam ñi njabootug suñu borom lañ te suñu borom wax na ne wa laqad karram naa bani aadama dafa teral doomu aadama yemut ci loolu mboolem kawnu bépp mu def ko muy liggéeyal doomu aadama saxara lakum maa fi samawaati wa maa fi lardi wa saxara lakum alfulka li tajriya fi lbaxri bi amrihi wa saxara lakum alanhaara wa saxara lakum alchamsa walqamara daa'ibayni wa saxara lakum alleyla wannahaara wa aataakum min kulli ma saaltumuhu wa in tauddu nicmatallahi laa tuxsuuha jéeri jéeg géej beeg fi ne loolu sax mënoon nañ cee day gën a gudd fi jant bii nii bu xëyul suba fay juróom-ñetti lañ ciy teg suuf si jaxasoo moom ndax jant bi mën nu ko ñàkk xam ngeen ne gàncax gi daa soxla maanaam jant bi dégg nga ngir mën a màgg jur gii lekk ci gàncax gi noonu nu di ci jëfandikoo di jëfandiku ci jur gi fi ne mboolem li ñuy jëfandikoo lépp dama am sunu waajur boo xam ne wax ne amul kenn ci kaw suuf kuy jëfandikoo kuy dunde ay piqûre mbaa mbaa ay ay ay comprimé maanaam nee na ñëpp maanaam lii ñuy bay ci kaw suuf ak jur gii nii ak seeni soow rek lu lekk goo mën a gis ci loolu la bay ko jur gi bu fi maanaam gàncax gi bu fi jógee noonu lu jóge fi waxuma laak nag sedd bi nga xam ne moom suuf si daal way moom bu jant bi demee nga xool géej gi ci misaal géej gi tey bu xëyoon suba fer ñiis moom waa jafe-jafe bu rëy daal di am ndax niir yi moom doo leen séenate xam nga ndax géej gi xam nga jant bi da ci tàmpe mu doon saxaar dem ca niir doon ndox nekk fa mooy li muy wër a ko waraat léeg mu sotti ko fen xew xam nga loolu xéwalu taw googu yooyu yëpp na daal taxaw nag bu ko dee tàngoor ñëw fi beneen jafe-jafe indi boo xam ne kenn mënu ko lijjanti maanaam lenn lu mën a ñàkk ci ci ci ci ci ci kaw suuf ak ni ko suñu borom binde ak nii mu demee boobu ba léegi ba soo ba léegi nga xam ne soppi ko wut loolu dara gën a koy xéewal bukkut ak nag wetu bëtin gi nga xam ne mooy maanaam nun danoo wutale ak yeneen mala yi nga gis ci kaw suuf ruux gi mu def ci doomu aadama bukkut ak ruux yeneen bindeef yi ruux googu da ko askan ci boppam wax ne wa nafaxtu fiihi min yi moo tax kon xéewal yooyu noonu la demee ñaareel ba itam suñu borom xamal nu ci làmmiñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne jaam bi suñu borom xamal na ko yow duma la bàyyi mukk sayyidina Daawuda alayhi salaam dégg naa suñu borom da ko ma sax ne ko law alima almudbiruuna anni kayfa intidaari lahum wa rifqi bihim wa shawqi ila tarki maasihim la maatu shawqan ilayya wa taqattaat awsaaluhum min mahabbati nee na gaa ñi ma wan ginnaaw féetéerlu ñooñu bu ñu xamoon xaar gi ma leen di xaar ak yërmaane ji ma leen ëppal ëmbal ak ñeewante gi ma leen ëmbal ak cofeel gi ma leen ëmbal bu ñu ko xamoon danañ rus ba faatu sax ngir kersa te maa ngi leen di xaar rek saa yu ñu dëppee ma nangul leen yonente bi nee na boo toogee ne suñu boroom maa ngi lay jéggulu nee na dana ci bég mbég moo xam ne mooy ëpp waa ji nga xam ne dafa yoroon ak lekkam ak naanam def ko ci gileem nekk ci digg màndig ma wàcc di faj aajo rek gileem gi daw mu wër wër wër mënta fexe ba gisati gileem gi mu wër ko ne fi ne mënta dox ba àgg ci fenn moom li muy def mooy toog faatu mu tëdd fi bërëb ne naa naa tëdd fi bu ma faatoo muy sama bàmmeel nee na jekkee ne xënat yem ci gileem gi ak lekk geeg naan gi mu bëgg a bëgg a bëgg ba ne suñu borom yow sama jaam bi man sa borom maa ngi lay sant <laughs> xam nga rasulullahi ne axtaa min shiddatil farax mbégte mopp nee na suñu borom nag mooy gën a bég saa yoo ñëwee yow ne ko jéggal ma xam nga yow yaa ngi tooñ <laughs> ne ko jéggal ma murit nag foofu lay ne ci gis suñu boroom janloog moom nga xam ne xolam loole lay janlool man na jëflante nag ak nit ñi ci zahir naa nga waaye xolam moom du teggiku bëtam du teggiku fa fa fa jëmm joojee nga xam ne fi la lépp bàyyi ko ànd gi nga ànd ak sëñ Tuubaa rek moo la ko taw feex la xam nga mën ngaa jur du ma ko waxee di sappone sappone sax jàmbar lañu waaye mën ngaa judd juddoo feneen doo xam sax sëñ Tuubaa xam nga loolu moo tax ànd gi nga ànd ak sëñ Tuubaa nii loolu yàllaa la ko defal jur yi nga am moo la ko tànnal bërëb bi nga juddoo senegal waxtaan naa ko daaw réew mu am solo la loo xam duñ ko bàyyi duñ ko bàyyi xel suñu borom sëñ Tuubaa da ko daa tànnal sëriñ bi bërëb bi mu feeñee tànnal ko waajur yi mu feeñee tànnal ko dégg nga bis bi sax bi mu feeñ ak jamono ji mu feeñ loolu nag bunt yu am solo la ci nga xam ñun xéewal gi na am ay nit a ngi fii ci réew mi te xamuñu dara ci Sëñ Tuubaa am ñu sànku nag te alku nag ba di wax sax ab safaan ci sëñ bi xam nga ñooñu amuñu tawfeex sëñ Modou Racine Ndiaye daana wax baat bu am solo xam naa ko laa jeexale foofu mooy sëñ bi moom daa tànn ak njabootam te loolu yow ma alastu la woon ne na nee na suñu borom da ko xamal ne boobee ruux yi xam nga yàgg nañ fi suñu borom da leen bind dajal leen ci aalam boo xam ne moom la gaa yi tuddee aalamul jabarut wax ak ñoom alastu bi bi rabbikum ñu tontu ñoom ruux yi nun ñëpp nu tontu am ñu daal di gëm foofee am ñoo xam ne dañ leen a forcé ñu doog a gëm moo tax boo ñëwee fii ci àdduna bi ki gëmoon boobee te kenn forcé wu ko day gaaw fàttaliku xam nga diine yii yëpp du dara lu may bëgg a fàttali ruux gi wa dakkir ngir mu fàttaliku loo loolee nga siñente woon ak suñu borom képp mooy diine mooy diine gi ñuy jëf yëpp loolu lay loolu lay jariñ boo fàttalikoo nag delluwaat nga nag fa fa ca cosaan la suñ tubaa nag nee na foofu la ko suñu borom xamal ne ko si sunu boroom daa bëgg yónante bi moom sallallahu alayhi wa sallam bëgg ne moo tax mu ko ci suuf ne ko maa ngi waaj am lu may laaj waaye nag bu ma laajee rek gaawal tontu boo tontoo ki njëkk a tontu kooku lay kooku lay jiital nee na waaye sëñ Tuubaa itam eh, su yónnante bi bëgg gi mu bëgg sëñ moo tax mu déy ko moom suuf ne ko tontoo rek na nga gaaw <laughs> gaaw moo tax nee na yónnante bi bu ñu laajee moo njëkk a tontu suñu borom jiital ko defal ko lam ko defal lépp sëñ Tuubaa itam moom it mu di tontu. nee na bi mu tontoo ba noppi nag ba ñëpp tontu ñii gëm ñi nga xam ne dañ leen a forcé sunu borom wax yonent bi ne ko ginnaaw yaa njëkk a nangu tànnal sa ño sa ñooñ sa waa kër ak sa njaboot ak ñi ngay àndal nee na mu tànn tànn ba noppi am bi yow yi tànn ba noppi sëñ bi nee na ñu wax ko ne ko yow tànnal sa waa kër nee na ñëpp jàpp ne damay dem fa kenn tànn tànnagul ma tànn fa ne ma dugg ci biir li Rasulullah sallallahu alayhi tànn ma tànn ci yéen tànn ci ñoom xam nga bu tànnoon ca ña nga xam ne kenn tànnu ko den ab yonent lay doon xam nga lii nag wax ju leer la te wér ci noonu loo xam ne amut amut jafe-jafe ci noonu <laughs> waaw léegi nag moo tax danaa wax ne yenn xiyaarul min xiyaar ngeen ay tànneef ngeen ci biir yi tànneef ndax rasulullah daa tànn mu tànnaat ci biir rasulullah sallallahu alayhi li mu tànn moo tax dangay gis koo xam ni day nekk fee sunu biir juddoo biir Tuubaa te bokkul ci ci mbir mi xëy suba rek nga gis mu dellu feneen kenn du xam ci lu mu nekk nga gis koo xam ne feneen lay juddoo mbaa mu nekk fa nga gis xëy suba nga gis ko fii fan yi ndeysaan dama am mbokkum tali bi mbokk mbokk moo xam ne sax moom ab Gambie bu góor la nii boo xam ni <laughs> dèjà damaa jekk ci bëccëg rek mu ñëw ne ma ne Gambie laa xëyee diggul sax wolof bu baax nii ne ma dafa diglu waxtaan wu ma defoon ci xol bi bëgg Sëñ Tuubaa goo xam ne kii man la nga mu ñëwee toog nañ lu ëpp waxtu xam ne mën noo communiquer muy jooy jooy yoo xam ne sëñ bi kii man la <laughs> dama mën sëñ Tuubaa dama ko bëgg rek te yàlla tax ma laaj ko moom xaalis xaalis Sénégal bi keroog la ma sa ñëw Sénégal dana xaalis Sénégal bi sax xam ko ma ne ko mbaa gars yi duñ la nax ci ci yoon wi mu ne buñ ma naxee baax na nga <laughs> ne fasage bañ noppee daa daal di tegoot ci yoon wi wuti gam wuti wuti wuti wuti gam moo tax maanaam de am xol yoo xam ne foo mën a ne ñooñu ay murid lañ ñu bokkoon ci njabootu sëñ Tuubaa gi faw ñu ñëw eh, sëñ sëñ Saliou maa ngi wax nag yeneen léegi nag <laughs> kon daal naa naa taxaw foofu jeexal rek nag sëñ Tuubaa moom nag moom loolu moom beneen waxtaan la xam naa sëñ sëñ bi <laughs> mooy mooy jëm bi ah, ah, ba gën a gudd léegi dana dugg ci laaj yi ah, maanaam sëñ Tuubaa nag moom diggam ak cant moom moom moom diggante bu am solo la te mooy tukkeem bii nii day tukki bu rëy te màgg suñu borom teg ko ci natt loo xam ni monsieur fu ko teg daanaka jëmmi doomu aadama xawut a xaj sim xel sëñ bi laa lay wax man Sëñ Tuubaa li mu jànkonte wax dëgg yàlla bu gee suñu gi nga xam ne noonu dañuy gëstu Sëñ Tuubaa man boo juddoo ba léegi maa ngi ci jéem a gëstu ak kii donte xaw ma lu bari ci sëñ bi waaye waaye faw nga yëm ci Sëñ Tuubaa ci li mu dékku ak li mu mën a dékku ak li ko yàlla jaral loolu lu tukki bii sëñ Abdoulaye dara wax ne bis bi mu fi jógee di tukki keroog la nattu yi tàmbali te at mu ne bu fekkoon démb at mee fukk lañ ko teg bu déwénee dañ koy yokk ful ko ba muy ñaar fukk bu déwén jégee ñu fulaat ko ba muy fanweer noonu la suñu borom di doon jëflanteek moom ba nattu yi jeex suñu borom tàmbali di ko fay waaye moom it noonu la ko doon fayee xam nga suñu borom moom day buur bu mag boo xam ne bu fayee mu ëpp waaye bu fayoot mu ëpp waaw yàlla dogal nee na muy jëfalanteek moom ren jii lu mu ko jox bu déwénee da koy ful joxaat ko loolee lu lu na toll bu déwén jegee mu fulaat lool lépp joxaat ko ko bi mu agsee ci njëréem nag daana ko sant ca cantuk boppam bi mu agsee njëréem nag la wax ne man de li ma suñ borom fay ci sama tukki bii kawe na sama njort ba tax na maa ngi sàkku képp koo xam ne sama mbég sa mbéga bis bii bu agsee nga di ma ci sant la yàlla maanaam bis boo xam ne yàlla rek lañ ci sant loolu yaa xawuma ko ci kaw suuf feneen bisub sant yàlla loolu ci sëriñ bi lañ ko njëkk a xamee may yi ko suñu borom may nag ci tukki bi loolu moom moom weneen waxtaan lay doon ndax moom suñu borom moom li ko Sëriñ Tuubaa wax dëgg yàlla li mu li ko yàlla jaral wax dëgg yàlla te daa toogul nii rek yàlla jëkkee gi may ko daa jëf lépp lu jëf di may rek fi ne tey moom yàlloo na ko daa jëf jeexal léppam ci suñ borom desulu ca dara daana wax ne bu buñ demee yomal xiyaam de foofee lañuy xame ne suñ borom ba ma koy jaamoo maanaam jaamu gi day waruma ci waaye moom bi may fay naxuma te suñu borom daa gëmut nelawut lépp lu waaye dafit di nga ko gis moo tax nag xéewal yooyu nag da koo njëkk a tàmbalee sant fi ne boo duggee ci xaside yi xeetu jant gu ne danga koy da nga koy gis Sëñ Tuubaa mooy santkat bi gën a màgg moom ci santkat yi léeg nga gis xeeti santin yoo xam ne day wax ne mboolem ko mas sant cant googee mu sant lu toll ne cant googee maa ngi koy sant yàlla <laughs> ashkuruhu shukra jamii shakirin wali siwa naxwiya saaqal kaafirin shakartuhu shukra jamii shakirin bil qalbi taarikan li naafirin sukuru baat boobu la jëfandikoo léeg-léeg mu jëfandikoo baatu xamda ahmaduhu xamda jamii alxummadi ala nabiyi almuntaqa muhammadi ahmaduhu alwara mawlaana nga xam ne cantu gaa yi jiitoon yëpp dañu gis mu sant ko léeg mu waxidoon yi lay sant ashkuruhu shukra alladina waxadu wa abadu wa axlasu musrasadu ashkuruhu shukra alladina amanu wa aminu min alchaqa wa amanu mooy cantu ñi gëm yàlla nu siinu cant doy rek ak ak la bari bari kenn ku ne sa sa cant lam lu ne toll maa ngi koy sant suñu borom tabaaraka taala léeg mu dugg ci santul mu santuk ñi bëgg yàlla ashkuruhu shukra al muhibbina ma wa bin nabi liya muna munaaye jamaa ashkuruhu shukra muhibbin lam yara qattu siwaahu wa siwaahu lan yura nga xam ne cantu ki bëgg yàlla nga xam ne gisut lu ma yàlla nee na cant googu mboolem ñi mel noonu seenu cant maa ngi sant cant ko toll noonu léeg mu sant cantu waasilul mooy ñi nga xam ne dañu àgg ci ci suñu borom dëgg-dëgg àgg ashkuruhu dëhra shukuural waasilin al aarifina bil hudal muwaasilin ashkuruhu shukra alladina wasalu wa li yaquulu kullama uxasilu ñi àgg ci yàlla dëgg-dëgg àgg ak ñu mën a toll seen xeeti cant yëpp maa ngi koy sant suñu borom léeg-léeg sukurul aarifiina lay sant ashkuruhu dëhra sukural aarifiin ashaaribiina lil utaasi algaarifiin nawaytu sukrahu sukura man araf bi rabbihi wa min fuyuudihi garaf cantug ñi xam yàlla dëgg-dëgg xam léeg-léeg ñi nga xam ne nag mooy mushaahiduun yi ñi nga xam ne ñoom ñoom ñoo jalloog jëmmi suñu borom ji te seen bët du xef du raf ci janloog jëmmi suñu borom ci tabaaraka wa taala nga ne gis ñu leneen jëpp ñu ne sax leneen am na ashkuruhu wa lam yazal dayyaana shukra alladina shahadu ayaana léeg-léeg cantum nag ñi naan ba màndi ci ci ci ci ci ci ci leeri suñu borom yi la ak leeri turi suñu borom yi ak géeji suñu borom yi ashkuruhu shukra alladina sharibu min azbihi wa liljinaani qurribu léeg-léeg cant gi da koy wutal ab lim shakartu rabbi adad al araadi ma alsamawati maa al araadi mboolem suuf si niñ toll ak xeeti suuf yi am yëpp lu di toll ci cant maa ngi koy sant suñu borom asamaan yi itam noonu mboolem xeeti asamaan yi am yëpp ak lu di toll mboolem xeeti araad yi tam yi nga xam ne moo taq ci jëmm yi ashkuruhu mil assamaa wal ardi suuf seeg asamaan sax ñu duy ko ba mu fees ci cant maa ngi koy maa ngi cant cant gu doon noonu di ko jox sunu borom tabaaraka wa taala lillahi hamdi kulla shahrin wa sana weer wu ne itam ak at mu ne itam maa ngi koy duy ba mu fees dell ak cant di ko jox suñu borom tabaaraka wa taala chakartuhu bi adadil ajraami wa adadil araadi bi ixtiraami mboolem jëmm ju ne léng rek ak fu mu ko mën a doone ci kawnu bi maanaam jëmm jooju ak na mu toll ci cant maa ngi koy def cant gu toll noonu di ko jox suñu borom xam nga loolu <laughs> ci bërëb yëpp itam chakartuhu inda dawil kufraani fu mu nekk rek sant la ashkuruhu bil xarakaati wa sukuun ba àgg nag ci wax ne kulliyati shakiratun lillahi maanaam sama lépp daa maase di sant suñu borom tabaaraka wa taala foofee nag cant yooyu yëpp mu sant ko te loolu nag tëxul nag mu jot dëgg-dëgg cant gi mu bëgg moo tax mu ne képp koo xam ne sama mbëgg sa mbëgga maa ngi lay maa ngi sàkku ci yow dégg nga bis bii buñ ci àggatee nga di ma santale suñu borom ko wa la nee nag képp koo xam ne yaa ngi ma ciy santale suñu borom buñ demee yowmal xiyaam day li ma suñu borom fay ci tunk bi tukki bi du la ump xam nga loolu lu am solo la noonu demoon ca tukki ba demoon fenn maanaam te man man loolu ban noo ump ak lu noonu ca mos rek moom lu mu toll rek moom baax na xam nga waaw <laughs> bu ko dee kon loolu moo indi bisu màggal Tuuba mën nañu taxaw foofu wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.